ci bërëb bi nga xam ne fi ngay dóore waar ñu nag dóor waax la ñu wax bu ñu nee dóor waar amul soo métier maanaam xeebuñu benn métier ku ci nekk métier ba nga ne di ca yëngatu di ca suturloo rek ci la ñu waxtaan ak yow nga war ñu ko présenté journée bi yëpp dinañ la ci am mu am ay laaj ak tontu ci lépp luy yëngatu ci li nga xam ne moom ngay def. waaw lavage bi moom euh, du lavage bi rek parce dañuy def en même temps dañuy defaale entretien dañuy def euh, changer organe dañuy def vidange en même temps aussi dañuy def. Euh, oto dinañ koy def modification encore matériels yooyu am na yu des yu ñëwagul lu bëri daal ñu ngi koy def du si lavage bi rek lay yem affaire mécanique bi aussi dañ ko si yëngatu waaw. c'est super c'est une découverte ah ñun yaakaaroon nañu lavage rek ci lay yëngatu waaye lépp loo xam ne day laal oto euh, da ngeen def ba moto da cee moto waaw moto da si bokk parce que moto su ñëwee su paanee sax dañ koy dépanner mu tàkk tout ça dañ koy def bàyyiwuñ dara. moteur yi gaal sax daanaka dañ ko fiy taal. ah macha allah vous êtes complet alors lépp loo xam ne day yëngatu ci wàllu rek technique oto euh, ci raxas bi ba ci dépannage bi ba ci changer organe yi ni ko Cory waxee loolu yëpp kon dinañ ànd ak moom ci bécce bi la bokk ñu découvrir ko euh, ni ma ko waxee ñu doore ko rek ak li nga xam ne euh, moom mooy lavage bi yan façon ngeen di faral di def. waaw lavage bi daanaka am na trois parties am na simple am na demi complet am na complet. Euh, simple bi euh, daanaka aspiré sifflet lay doon demi complet bi daanaka moteur lay doon ak solide complet bi maanaam siège yeeg tout ça si lay nekk dañuy démonter siège yi mais moquette yi oto bi dañ koy génnee ba nga xam ne ni oto bi yaxi kese moo des boobu mooy général bi mooy complet bi waaw kon da ngay ñëw ñu dem ñu xool fi ngay dooree waar bi ngir ñu xam lii nga ñuy expliquer ñu mën koo comprendre mu mel ne sama jaar gi nga xam ne ay novice lañ ci duñ ci xam lu bari. yaa ngi doon wax ñetti format lavage yi euh, ñu gis euh, ci jamono ji li nga xamante ne si mooy matériel yi ngeen di faral di utiliser est-ce que mën nga ñu présenter mën nga dem ni. wala lii ngeen nii ñuy gis ni bokk na ci li nga xam ne moom ngeen di soxla pour mën a liggéey. waaw bi moom machine bi mooy génnee mousse bi euh, pour raxas keroog suñuy oto bi waaw su nekkee bale mooy G bi G bi G bi moo nekk nii yaa ngi dégg euh, aspirateur aussi am na am na beneen machine boo xam ne encore euh, suñu raxasee moteur bi pour bañ moteur bi am benn alamoni maanaam mu bañ a tàkk wala leneen am na fi waaw. am naa benn appareil aussi boo xam ne nii mooy xool oto bi ndax am nga paan wala amoo paan loolu yëpp naa leen ko defal. loolu yëpp da ngeen koy def yàkkamti naa koo découvrir ndax Fabrice Nguema daf ma ko taal taal taal ba ma bëgg a xam kori ci lan lay yëngatu métier bi muy def ndaxte euh, ni ma ko waxee sànq rek ñu door waar la ñu wax te métier boo nekk rek ni ñu fekk la fa ànd ci yow nga dóor ci waar mu am solo lool ni ngeen di liggéeyee mën nga ñu expliquer naka lay demee bu ngeen xëyee nu ngeen di def ak journée bi nu muy demee. waaw journée bi daanaka dimanche. dimanche bi ak euh, vendredi li dalee ko vendredi samedi dimanche mooy gën a métti parce que boobu daanaka wala may añ sax day may dem bi ay 5 heures wala 6 heures doo añ parce que liggéey bi mooy xat ba nga xam ne ni sant yàlla daal. ci la nit ñi di amee jot surtout ñi nga xam ne ay liggéeykat. voilà exact si la nit ñi amee jot pour ñëw mun a lu encore. bu dee complet bi moom parfois am na yoo xam ne day jël deux jours parce que complet bi am na yoo xam ne à sec laa koy def am na boo xam ne nii siège bi dañ koy gérer. boobu day def deux jours au maximum trois jours mu doog a pare. à sec ak gie maanaam. à sec bi mooy raxas boo xam ne nii fëtë euh, yi du tooy tooy boobu noonu bu dee bi nga xam ne ni dañ koy gie boobu day def trois jours parce que machine bi lañ koy gie ndox mi tilim bi mun a wàcc si suuf sées yi mun a set. d'accord bu ma la déggee bu baax kon du ngeen yam rek ci lavage extérieur oto bi mais da ngeen di raxas sam ci biir auto bi. ci biir oto bi ba si plafond bi duñ bàyyi dara. bu dee place clim bi sax ñun dañuy démonter yooyu noonu lépp pour mun a nettoyer pour mu set. li nga wax ni yombul de dina leen jël temps de. day jël temps moom day jël temps parce que suma liggéey moom soo xoolee moom day jël temps mais nag clients yi loolu moo tax aussi ñuy daw si parce que liggéey bu baax moo si am solo ak liggéey ak euh, suma xol suma xadar ak liggéey la si kontaante encore waaw. d'accord koor yi métier bi nu mu dikkee ci yow da nga def formation bi wala da dem ñu joxe la ci atelier nga jàng ko euh, ndax jàng moom du wees saa su ne yaa ngi découvrir yu bees ak technologie yu bees yi génn man nga ñu expliquer sa ndoxteelu liggéey ak ba yegg si fii. Mm-hmm. suma métier moom mooy pono vulgarisateur moo nekkoon euh, suma métier mais en même temps vulgarisateur dama si goon boole liggéey organe camion parce que dama goon liggéeyal CEC e, dama leen goon liggéeyal kii suma xarit la Assane yàgg nañ yàlla def na mu dem tukki ba ma laajee suma xalaat ma ne ko war nañ mun a jaay bagage conteneur ñu jógee foofu noonu ñu tijji lavage bi lavage bi encore ñuy dem muy gën a yokk matériel yi ñuy gën a avancer encore machine yi di gën a ñëw aussi waaw mais machine jën ak choc bi yëpp dañ ko yor fii nii mais foo ko jàngee dañ la joxewoon ci atelier laa bëgg a xam moom bi nga jógee ci vulganisateur bi ba pare wala da nga defi formation ci école yi wala ci ci métier nga ko jàngee daal maanaam. non defuma formation nag yàlla moo ma may man école sax daanaka deux ans laa fa def lépp weñ moo nekk suma xol. weñ laa gën a bëgg teel dem atelier. voilà ma teel a dem atelier parce que atelier bi son papa ko moomoon ba ma fay dem daanaka ay quinze ans yooyu noonu lay commencé di def. waaw macha allah te boobu ba tey yaa ngi ci. boobu ba léegi maa ngi si wàllum weñ. du pëno du dara. waaw. li nga ci xam yëpp kon ci ci ci ci atelier bi nga ko jaar. waaw si atelier bi mais am na yu bëri nag technologie bi dafa gën a avancé parce que oto yi léegi électronique bi moo gën a bari gis naa ñoo xam ne dañuy dem lavage ñu raxas seen moteur oto bi du tàkk. mais loolu sant yàlla man mosuma daal parce que am na lu bëri loo xam ne xam naa ko si moo tax du ma daal. waaw nekk métier boo xam ne tamit Cory euh, euh, mat na di bàyyi xel maanaam vigilance parce que ni nga ko waxee sànq euh, au delà de matériel li ngeen utiliser lu jot a bàyyi xel la ndaxte lu ci bokk rek bu ci duggee da koy yàq. da koy yàq waaw même man am na ay booy yu ma fi joxoon ma formé leen pour lavage dem yooyu yëpp parce que duma ma nekkul ne damay bàkku nag mais lavage yi bëri na mais man comme li ma jot a xam ak clients yi liñ may expliqué man boog suma côté du ma dal. parce que parfois nit ñoo ne ma moteur bi dañ ko raxase station mais li ak lii ak li mais man maa ngi sant yàlla mosuma am problème boobu noonu. lavage koor yi dina nekk période buy métti surtout période nawet nawet bu ñëwee moom xëy na di ngeen ci am euh, tuuti jafe-jafe ndax oto yi day takk ndax yoon yi euh, poto poto yi am ak ndox yi taa mooy indi lu nu mel. Mhm. loolu moo waral euh, ñu andi machine boobu noonu nga xam ne moo yëkkati oto yi parce que soo xoolee ban bi day jàpp oto yi carrosserie bi commencé yàqu. mais yàlla def na bu dee yegg si nga fii nii ban boobu noonu du jàpp sa oto parce que dinañ ko nettoyé ba mu set dañuy yëkkati oto bi raxas ko gasoilé ko da nga xam ne ni suuf su si tàppee rek day bàyyiwaat du fa taxaw quoi waaw. kon mi ngi noonu loolu leer na bokk na ci aspect yi nga xam ne day am solo ndax ku ne xam na ne nawet woto yi dañuy rek euh, faral di takk takk bu jéggi dayoo sax ci yenn saay moo tax euh, ñu laaj ko lu ne mel yenn façon lañ ciy daal di def ñoom pour mën a fexe ba mu set rek wecci kori dañ lay bàyyi nga nekk ci waar wi ndax dóor waar moom bu ñu ko waxee waar wee tax ñuy ànd ceeg yow rek ci waar wi ngir yi yeneen laaj question de jaar yàlla jom ak fit mooy matal góor yàlla mission bi dóor waar la question de jaar yàlla jom ak fit mooy tax doon di jàll mission bi dóor waar la question de jaar yàlla jom ak fit mooy matal góor yàlla mission bi dóor waar la question de jaar yàlla jom ak fit mooy tax doon di jàll ndax poussière bi ci nekkoon nag lu ci bokkul daal di génn. waaw ah, lépp dañ clim beeg poussière beeg lépp dañ parce que oto bi fii lay noyyee quoi fii lay noyyee. moo indi bu fattoo. mu indi yeneen jafe-jafe yeneen jafe-jafe si oto bi waaw moo tax dañ koy nettoyer ba mu set. am na beneen aussi boo xam ne mooy pour clim bi boobu aussi su climee clim bi ni mu war a seddee du ko seddee seddeeti waaw. ba tey Cory saa nekk ci waar bi Cory li ngay def nii mooy lan. lii parce que produit bi may utiliser nii dafa nekk produit boo xam ne dafa fort mënu ko utiliser sans nga sol masque bi nii waaw. produit boobu lu muy jariñ. produit pour nettoyer moteur la. ak euh, wàllum foo xam ne aluminium la am moom lañ koy nettoyer. bala ngeen koy def da ngeen di jël par mesure de sécurité euh, masque bi nga yore di ko waaj a sol. Mhm. moom lañ euh, moo tax ñu koy sol parce que produit bi su la jàppee yenn jàpp yi rek mun na yàq sa dënn bi wala mu andi la beneen feebar boo xam ne day doy waar. kon lu jot a bàyyi xel la lii ñu bañ di ko sàggane. ci li nga xam ne seen façon liggéey bi ngeen di def. duñ liggéey te wàllum produit bi su si naree bokk fo fuñ dañuy sol masque bi parce que moo ñuy aar quoi. ñu bàyyi la nga nekk ci. waaw. seet si xel ak yaram mooy tout sa taaf yaram si mu yore di doore bismillahi lay doore mu fenkal suma jant fu ma toll di sant mooy fenkal suma jant fu ma toll di sant jóg door waar mooma waara ayow saa waan ba bëri ma mucc mun oto bi mën naa ko raxas ma bomb ko ak suma loxo sama laal dara mun naa ko raxas 27 sans ñu nekk di bomb di def leneen noonu. loolu noo koy defee. waaw parce que produit bi ma yor nii mooy def loolu yëpp soo xoolee tilim bi léegi nga gis muy commencé wàcc. ah produit yi suffit rek nga pompe ko tilim bi di wàcc. di wàcc nga dóor G bi oto bi set wécc sans nga nekk di bomb ak yooyu noonu. tamit beneen forme la lavage boo xam ne mooy gën a gaaw sax. mooy gën a gaaw voilà exact mooy gën a gaaw ba pare parce que soo xoolee bu dee omo wala madaar yi day day yàq peinture day furiloo peinture oto bi yaa ngi dégg mais lii moom dañ ko liggéey pour oto kese ak carrosserie kese waaw moo tax man du ma liggéey yeneen produit lu produit d'origine quoi. kon day baax nga xam ban produit nga war a utiliser pour oto. parce que am na ñu bëri ñoo xam ne omo bi la ñuy jënd wala madaar bi yooyu day yàq day furiloo peinture yi jàmbur yi daal waaw. produit bi daal moo gën te dina set wecc. day set wecc moo gën waaw. Codou Sarr Ngok moom moo ne ci waar wi di def lavage oto ak lépp lu jëm ci wàllu technique euh, maanaam oto complet daal moom Codou ci la nekk di ci daal di yëngu ni ngeen ko gisee noonu. nee na leen produit boobu mën na raxas oto bi te du bomb te du utiliser ay produits détergents yoo xam ne xëy na day yàq euh, lu jëm ci rek euh, woto yi ci wàllum peinture ak yu ni mel ni mu ko waxee euh, noonee ci la daal di nekkee du bàyyi benn fànn lépp loo xam ne ci oto bi la bokk rek moom kori da koy rek faral di nettoyer ci waar wi nga xam ne ci la nekk daal di ci yëngatu ngir rek mu set wecc dafay baax ku ne itam ñu koy bàyyi xel ndax xam nga mooy daw comme ci suuf lu ne mën na ci dugg. na si dugg su paree di nga xool suñu yëkkatee oto bi aussi di nga xool ni muy tilimee ak su paree ni muy mel aussi waaw. yaay du alal bu bëree naga ragal seetaan mun na la bàddil mais buur bi su lay abal bëgg nga jug goj day mel ni ku lay koj day mel ni ku lay xoj pour ba nga wan ni toj jóg waar moomu waara eyo ba nopp produit mën nañu xamaa lan nekk di def waaw machine bi moom la ñuy liggéey parce que moom moo yëkkati oto yi pour ñu mun a am euh, li ñu soxla si oto bi ak li ñu bëgg waaw c'est-à-dire li ngeen soxla li ngeen bëgg xool fi ngeen war a nettoyer. voilà xool fi ñu war a nettoyer euh, pour liggéey bi mun a jaar yoon daal. yéen a ngi liggéey ak ay machine courant moo koy doxal. waaw courant moo koy doxal. courant moo koy doxal parce que machine yëpp euh, daanaka trois 380 moo koy doxal. maanaam day soxla courant bu bari pour mën a dox. courant bu bëri waaw parce que bu dee yeneen lavage yi ay 220 laay gis ñu yor mais man soo matériel yëpp moo koy doxal bu dee bii nag bii air moo koy yëkkati moom. di air a ko yëkkati. waaw air moo ko yëkkati. bii moom dina la dimbali ci lu bari ci li ngay gis xëy na. li nga bëgg a raxas. voilà di nga mun a xam li ngay raxas di nga mun a gis lu baax aussi li ngay liggéey.

waar. Look good waar moom waar. waxtaan mun na la bàggul mais buur bi su abal bëgg nga jub koc day mel ni ku lay koc. moom da gis fii moom da ngay gis lépp da ngay mun a liggéey lépp aussi waaw mu ngi noonu. système la bii la Fabrice Nguema naan da koy yëkkati. mu ngi noonu da koy yëkkati des na si kanam aussi suñ paree oto bi foog mu def euh, foog mu joxe avant bi ñu def avant bi aussi pour ñu mun a liggéey liggéey bu correct. waaw lay permettre comme ni ma doon wax sànq rek yi nga xam ne doo ko mën a gis nga mën ko gis mën ko nettoyer. voilà da ngay da ngay mën a gis li nga xam ne nii mënoo koo na gis su nekkee oto bi dafa tegu mais soo yëkkatee nii moom dangay mën a gis liggéey bi nga war a liggéey yëpp da mën a xam lépp aussi oto bi tey lu mën a nekk suuf aussi di nga ko mën a gis di nga mën a xam. mën nañ xam ñàkk ñi dul def lii euh, yan jafe-jafe la leen mën a indi seen oto yi. waaw lii moom euh, ñi ko dul def moom parce que parfois ñu yëkkati oto gis ne oto bi si suuf yëpp dafa xoomaat te boromam mosu koo gis dem na ba weñ bi di dagg wala leneen di kii parce que temps am naa si benn oto boo xam ne nii fale carnet bi si kanam euh, kii bi euh, laaf yi benn laaf bi dem na ba nga xam ne pour mu dagg tuuti moo si des waaye bu ma ko sax moom daanaka dafay dafay yéemu waaw. ngay woo client yi nga xam dañoo yor oto ak yenn matériel yi ñuy faral di def lii lii ñaata temps nga jàpp ni nga war a toog di ko def. waaw liggéey bi moom temps bi mun na bañ a yàgg. maanaam ñi yor oto yi lii dañu waral di ko faral di def wala ban temps ban semaine la ñu jël wala weer lañu ñu war a jël pour di xool seen oto yi lu mel nii ngir ñuy xam jafe-jafe ci nekk. waaw parce que lii moom au maximum su nekkee toog nga 6 mois 6 mois yu ne wala 5 mois yu ne war nga ko mun a def. à part loolu nag yeneen yi des mun nga def sa lavage simple euh, wala nga def sa demi demi demi lavage aussi mais lii moom cinq mois six mois da nga war a andi oto bi ñu def ko ko parce que mooy tax oto bi weñ bi di dundaat moo koy dundalaat mooy tax oto bi nekkaat en état aussi. Valentine, I'm a Valentine, I'm a fenante amatul enante amatul jaay break wala koo jàkku lekk li si bokk nekk nekk sama fekk su taay tëddu waan segg samay gaañ wàññi naa naan saan ak ay gaaw a saan laajal suma gaay yooyu yëpp lañ ay chômé ba gaay ku nekk di fay waa suba doon baal naa ku ma tooñ amatuma noon idol laa war a doon jàmm juux leer yi jàmm juux leer yi saawaan ba bëri mu mucc mun fori ak loo bandi bandi munu loo ma gondi 力，杀入梦必登地，后门定满神能力。未来不开创，你老被看到，还是一样的，什么都要知道。如果我梦完。 seetaan mun na la bàggul mais buur bi su abal bëgg nga jub koc day ni ku lay koc ni ku lay xoc pour bëgg nga wan ni koc jub dóor waar eyo jub dóor waar moomu waar gaat jublu rek maay gaat see wala maay gaat ñu ñaar jub dóor waar moomu eyo amatul ba tey ci Dóor waar bi Kori Sarr ak euh, noo ko waxatee sax Thiam bokku jëf. Thiam bokku jëf Thiam bokku jëf daal. ay jàmbaar ngeen macha allah. ni ngeen koy defee nii ak ni ngeen koy seetalee nii ah ba tey yaa ngi ci oto bi ci lavage bi daal di nekk euh, mën nañu xam fan nga toll nii. waaw fi mu ne nii moom euh, si ron sasi bi laa tollagum. parce que carrosserie bi ba léegi des na laalaguñ ko carrosserie bi sasi bi lañ bëgg a nettoyer ba mu sës gasoilé doog a wàccee machine bi laal cracho yi doog a si gée kanam bi aussi encore ak moteur bi waaw. kanam tam comme ni ngeen def si ginnaaw la ngeen koy defaat ndax mu set. kanam waaw pour mun a set wécc parce que lépp moo war a marché quoi waaw. ba tey gisaguñ leen ngeen bomb de machine rek ngeen yëkkati. kese ngeen di def bomb nee la ñun dañuy raxas sans bomb. moom itam mu xooli sa peinture bi. waaw voilà mu ngi noonu day xooli peinture wala ñuy xoos sa kii bi parce que ay njàmpe la ñuy jël xaw ma. <laughs> loolu baaxul nañ ko bàyyi. voilà loolu baaxul parce que affaire bi technologie bi maanaam avancé na léegi daal nit ñi nekkatuñ fi liggéey ak doole xel la ñuy liggéey léegi ak matériel encore waaw. am na solo Ngor Sarr nekkal ci waaru rek yow na set wecc rek. ok amul benn problème. nekk sama teg lu te du waan segg samay gaañ wàññi naa naan saan ak ay gaaw a saan laajal gaay yooyu yëpp lañ bàyyi ay sëmme pa gaay ku nekk di bàyyi waa suba doon question bi door waar la question de jaar jàll jom ak fit mooy matal góor yàlla question bi waar la question de jaar waar la jom ak fit mooy matal góor yaa fit mooy matal góor yàlla question bi dóor waar la question jaar jaar la fit mooy tax door bi jàll mission bi door waar la question de jaar yàlla jom ak fit mooy matal góor yàlla mission bi door waar la question de jaar yàlla jom ak fit mooy tax door bi jàll jóg fajaru teel takku fagaru teel jóg sama xel fàtt ngërëm laay defaat su ma tàllu di xel suba laay fexaat xeex ko tey mu mat xewal du amaat bala ba sama jeunesse wër naa macha allah bés lay xëy ni mes loolu yëpp misaal la amee góor yaay war a fay baay kenn ragal dinaa leen bégal ak alal bu lew sama cokkal di law bëgg naa fond de famille bu ma tul amee àq comme ñaan naa mu ami comme laa war a nàq seet si xel yaram may tut sa yaram li mu yore di doore bismillahi lay doore mu fenkal suma jant fu ma toll di sant ma fenkal suma jant fu ma toll di sant jóg dóor waar mooma waar jóg dóor waar mooma waar jóg dóor waar xeeb jox lépp lu xeeb toog soppeekuma toog dugub bi laay noot bëgguma am jox fexe yóotu kañoot di raw kenn du ma trax bu la jiiroo bay fot jaamee dinaa root hôpital naa ko fot bay mun di muñ root bul gudd mbaa gàtt jublu rek maay gàtt te wala maay gàtt ñu ngi nii maay gàtt jox laa la gëmloo te man moomee jaamloo gis nga boo sababloo dara commune la fiiloo nguur gi du la natoo dafa ndul rek loo lëf bu la gestoo nga neex a tiitoo liggéey lu yaay du alal du bëree naga ragal seetaan mun na la bàddil mais bu du fi lay abal bëgg nga jub kocc day mel ni ku lay kocc day mel ni ku lay xocc pour ba nga wanni kocc jóg dóor waar moom waar eyo jóg dóor waar moom waar jóg dóor waar melante amatul melante amatul fenante amatul elante amatul jaay black wala ko jàkku lekk lu si bokk nekk nekk sama teg du taay te du waan segg samay gaan wàññi naa naan seen ak ay gaaw a seen laajal suma gaay yooyu yëpp lañ bàyyi ay chemin pagaay ku nekk am di fay waar suba ngoon daal naa ku ma tooñ ma sama noon idool laa war a doon jàmm juux leer yi jàmm juux leer yi saawaan ba bëri ma mucc mun sori ak loo bandi bandi munu loo ma gondi saruma biddanti xaw ma di marché lëndi bi laaj ba kàccoor nelaw bay xandoor ak fi yandoor sax moo ko yëpp door jóg dóor waar moom waar jóg dóor waar moom waar jóg dóor waar moom waar jóg dóor kontaan parce que man damay raxasal nit sax mu yëkkati may ma ne ma dafa kontaan loolu yëpp ak liggéey bi dama koy liggéeyal eh, xol ak liggéey ko di kontaan parce que voilà suma passion la man liggéey bi su koy def damay suma xol day sedd daal maanaam waaw <laughs> ok <laughs> Euh, en tout cas oto bi muy ñëw lan demoon te gis nañ ko mi ngi weex. waaw mais def na def na day gën a weex parce que affaire bi produit bi aussi day dundal peinture bi. koy dundal waaw day dundal peinture bi. da koy dundalaat quoi mais mooy li ma leen di wax rek bu dee omo yeeg madaar yi moom day yàq peinture day yàq peinture waaw. ak ak njampe yeeg broche yeeg yooyu noonu. yooyu nit ñi dañ weesu foofu fi mu ne nii waaw moo tax nag ñu war a dem ci professionnel yi nga xam ne dañuy utiliser produit yu baax yi ngir bañ a yàq seen matériel. voilà voilà parce que loolu da ciy am solo man soo xoolee su ma laawaat dañu cher na ma parce que produit yi may jënd aussi dafa cher moo tax mënut a yomb daal waaw. par exemple ñaata bu fekkee lavage complet. gën a néew daal 3000 la bi si topp daanaka ay 8000 et quelque la yem daal 30 mille la yem. waaw mooy bi gën a mooy bu complet bi trente mille vingt cinq mille am na yoo suma gars yoo xam ne dañ may feewee vingt mille waaw ah. waaw xam nga jamono neexul nag kori te poos yëpp bokkale wuñu <laughs> moo tax gars yi di dem xëy na ci lavage yu mbedd yi ñu jël njàmpeeg yooyu ngay tudd rek maa ngi day yàq seen matériel nag dëgg la dëgg la mais nag parfois aussi ñun dañuy dawal di dimbale nit ñi aussi parce que dafay mel ni clinique bii nii ki ko moom oto mbale na la si suba ñëw na ma ne ko 12000 ngay fay mu ne ma dimbale ma parce que ay dëkkandoor lañ 8000 laa yor ma ne ko amul problème ñu nettoyal ko. waaw dañ siy jàpp parfois aussi waaw. kon na gën a set ku dee setagul nii. voilà setagul de des na des na. waaw xaaral ba mu pare rek. de <laughs> jaar ak fit mooy sax doon di jaal mission bi door waar la question de jaar yàlla jom ak fit mooy matal góor yàlla mission bi door waar la question de jaar mission bi door waar la question de jaar yàlla jom ak fit mooy matal góor yàlla mission bi door waar la question de femme de famille bu ma tul amee àq xel ak yaram mooy tout sa temps ak yaram si mu yore di doore bismillahi lay doore mu fental suma jant fu ma toll di lii mooy xanaa deuxième couche bi waaw deuxième couche baa nekk nii waaw waaw defaat lii ñu mel ne sànq yaa ngi génn nag. waaw day génn waaw. <laughs> waaw mu ngi noonu dëkk. mu ne nag yaa mën nag. ah maa ngi nii de. maa ngi gis sànq di génn. waaw day génn léppay génn kay léppay génn waaw. waaw waaw lii yëpp foog nga xam ko rek. waaw doo koy mën a def doo ko mën a def gis nga ko mu ngi noonu. doo ko noonu ko rek. waaw la rek boo xam ne yow doo bàyyi benn détail. waaw man duma ma bàyyi benn détail métier la boo xam ne ba pare dama ko bëgg quoi waaw loolu la te dañ siy gestu bu baax encore waaw dañ siy gestu même suy fekkoon Assane si boppam mu ñëw moom su la raxasalee da naan non du moom sax. déedéet kay moom tam noonu la ci aaye. moom noonu la ci aaye moom si boppam mi jógee Japon ñëw fii nii waaw. <laughs> copain Papis. Sarr Cory ba tey yaa ngi ci waar bi ñu gis la nga def beneen façon bâche bi ak matériel bi nga yor pour lan la. Euh, machine bi mooy waral oto bi suñu raxasee ba pare ndox bu nekk ci biir rek moom day da koy da koy siffler ba mu set waaw da koy aspirer ba set siffler ko ba moteur bi du am benn problème waaw. tam mu nekk loo xam ne lu mat a bàyyi xel la ngir ndox mi bañ ci des bu ci desee mën na indi beneen jafe-jafe. andi beneen jafe-jafe moo waral matériel yi tonk yoroo ko rek euh, raxas moteur moom risque lay doon si yow ak ñàkk ko xam aussi day laaj nga xam moteur aussi wala nga xam oto aussi. Ah, waaw. question bi jom ak fit mooy matal góor yàlla mission bi dóor waar la question de jaar yàlla jom ak fit mooy tax doon di jaar mission bi dóor waar la question de jaar yàlla jom ak fit mooy matal góor yàlla mission bi dóor waar la question de jaar yàlla jom ak fit mooy tax doom bi daal jóg fajaru teel takku fajaru teel defaat fu ma toll di xel suba laay fexeel xeex ko tey mu mat xéewal bu amaat ba ëpp sama jeunesse wër naa macha allah bés lay xëy ni mes loolu yëpp misaal la amee góor yaay war a fay baay mun ma leen dab gaa mais jar na def fi dedans amul benn ragal dinaa leen dëggal ak alal bu lew sama cofeel di law bëgg naa fond de famille bu ma dul amee ak sama ñaan ñaa mu ami koom laa war a làkk seet si xel ak yaram moytu sa taaf yaram si mu yore di doore bis ni waay kori waay kori mu mel ne oto bi de tey jii nii moom mën nañu wax ni set na lan moo des instant bi instant yi euh, dañuy fomp carrosserie bi defar si biir salon bi mu ñëwaat parce que produit yi aussi mooy tax salon bi comme lii nii li ngay gis ni ñàkk muy am produit bi mooy waral li ni salon cuir bi di xotteeku parce que cuir bu ne rek am na produit bu siy dem dañ ko siy def pour cuir bi mën a dundaat waaw. yëpp ci raxas yëpp si raxas bi la bokk. boo ngeen na lépp set rek. waaw lépp na set parce que nit ki lay fay xaalisam aussi pour xaalis bi mun a barke aussi foog nga liggéeyal ko lu correct lu baax. ngeen jël en ci biir rek ci biti yëpp. ci rek ci biti yëpp duñ bàyyi dara. waaw waxoon nga ma ko de ne di ngeen raxas du ngeen bomb raxas ngeen ba mu set fomp rek ngeen di def ndax mu wow. mu wow saye raxas moom ñun dañ koy def euh, te duñ bomb duñ def dara waaw day set wécc si biir aussi day set wécc mais lépp produit yi ñoo ñuy dimbale aussi produit yi ñoo ñuy dimbale. moo seen moo gën a yombal suñu liggéey. waaw kon àggalee ñu daal di tëj dóorwaar bi comme ni ñu ko defee rek eh, ni ñu ko waxee ci ndorteel géeg léegi Cory Sarr la ñu àndaloon ci wàllu lavage oto waaye lépp loo xam ne oto da koy soxla rek moom da ciy yëngatu ci utiliser produit yi nga xam ne moo gën a moo gën a baax moo meilleur ngir rek liggéey bi bu noppee mu am satisfaction. waaw si loolu la nekk nii daal waaw loolu moo baax waaw. waaye. <laughs> jom ak fit mooy matal góor yàlla mission bi dóor waar la question de jaar jaar la jom ak fit mooy tax doon di jaar mission bi dóor waar la question de jaar jaar la jom ak fit mooy matal góor yàlla mission bi dóor waar la question de jaar jaar la jom ak fit mooy tax a doon bi daal jóg na jarul teente amatul naanante amatul fenante amatul enante amatul jaay break wala koo jàkku lekk lu si bokk nekk nekk sama fekk du taay te du waan segg samay gaañ wàññi naa naan saan ak ay gaaw a saan laajal suma gaay yooyu yëpp lañ bàyyi ay sëmme pa gaay ku nekkan di fay waa suba ngoon baal naa ku ma tooñ amatuma noon idol laa war a doon jàmm guux leen ni leen ko waxee woon kon ci ndoxteel yi ak léegi Cory Sarr la ñu àndaloon ci devoir lavage oto gis ngeen façon lavage bi mu daal di def oto bi ñu fi daal di fekk moom Cory ñu yendu ak moom lépp rek euh, mu teg ko ci yoon ak wax ñu yenn produit yi lay utiliser ngir mu gën a mën a set wax na leen ko du bomb wutul njàmpe wutul brosse moo ne de oto bi set na dinañ leen ko wan léegi Cory mu mel ne euh, oto bi de tarkaal la liggéey nga ko mu set li nga waxoon def nga ko. waaw mu noonu li ma waxoon def naa ko. Hmm. bon mu ngi noonu. Euh, liggéey moom mooy comme li ma la wax rek dañ ci dañ si euh, waslu ak dañ si def dañ koy jox ak xam aussi ba mot sëkk waaw mu ngi noonu. waaye Cory waaye kay xoolal ma oto bi waaye <laughs> def na wecc de macha allah nii nga koy defee saa su nekk ñu bàyyi la rek. ata ngay tàggatoo nga wax ñu yan jafe-jafe ngeen di faral di rencontré ak yan saafara nga ci bëgg. waa jafe-jafe yi moom euh, parfois. Euh, xanaa mun naa ne jafe-jafe sax amut mais espace mooy suma problème. surtout waaw waaw espace mooy suma problème su ma gisee koo xam ne mun nañu jàppale si espace nekk loo xam ne dañuy abal dañuy luye parce que maa ngi am yeneen matériel yoo xam ne mu ngi ñëw si conteneur bi yàggatul dara espace bon su ma ko amee daal liggéey gën a mun a yaatu quoi waaw parce que euh, déjà liggéey bi ñu ngi siy jël ay nit ñu ngi ñëw di liggéey ñu leen di fay bon ñu ngi dimbale si waale nit ñi. waaw Assane moom kenn mënu ko fay aussi Pablis aussi mënuñ ko fay <laughs> waaw <laughs> mu ngi noonu. voilà mi ngi noonu espace kon dañ koy ñoom faral di soxla ni mu wax am na solo ndax fekk nañ fi ay ndaw nekk tam ay jàmbaar di yëngatu ci waar bi eh, loolee saa su nekk ku ma dem ci dóor waar rek damay wax ne nañ leen jàppale ndax ñooñee ñi ngi def eh, fexe ba gone yoo xam ne toll nañ ci daan doole di am fu nuy xëyee kon day am solo kon ñu bàyyi la rek nga tàggatoo gannaaw ba ñu yendoo nga raxas oto ba mu set wut say matériel wut say produit set na daal macha allah ñu bala rek nga tàggoo ak ñi nga xam ne ñooy téléspectateurs yu Sen TV door waar la ñu wax te y a pas de sot métier pour xeeb benn métier mm-hmm. waaw Sen TV ñu ngi leen di jaajëfal euh, di leen di sant di leen di gërëm waaw si ñëw bi ngeen fi ñëw waaw ndeykat moom dafa daw mook Amina waaw kii mooy euh, boy Pulo <laughs> Babacar suma booy cabo euh, abu cibaloo xaw ma <laughs> kontaan nañ daal ñu ngi leen di remercier bu baax kontaan nañ bu baax waaw maa ngi sant suma ñaari jéeg yi aussi waaw ñaari jeeg laa yor nag. tudd leen tudd ah. waay. aaw <laughs> bi mooy bu ndaw. ñaareel bi mooy euh, Yacine. waaw ñu ngi noonu. ñaan yal na yàlla barkeel kon mi ngi noonu niñ ko waxee woon ci ndorteel géeg léegi woto baa ngi ni biñ doon raxas ngeen gis façon bi nga xam ni Coly Sarr raxasee na ko oto bi mu set wecc dóor waar rek lañu wax te dóor waar rek moo am solo waar wa nga nekk ku ci nekk di ca yëngatu bul ko xeeb te it fexeel ba mu rek ñoŋ lu ñu la jox nga mën koo liggéey liggéey ba gën rek baax noonu lañu koy bëggee ay jàmbaar la ñu nekk ndaw di dóor waar jàppale gi bu leen leen fàttee saa su ci li nga xam ne moom la ñuy soxla ngir fexe dóor waar wa ñuy nekk mu gën a rek ñoŋ beneen waar ak keneen feneen beneen yoon ñu fekk leen fa ngir ànd ak yéen ci Dóor waar coom ak fit mooy matal góor yàlla